waa Darou Life maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare di ziyaare sama sëriñ sama wasila sama yaakaar tey yaakaar ëllëg alaaj Thierno Moule Sow ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam di ziyaare soxna Mariama Kamara di ko ñaanal yàlla yàlla sunu borom ba yokk ko martaam ak darajaam ñu bàyyi mu bàyyi yàlla bàyyi ko fi njaboot gi ba ci kanam a kanam di ziare suñu ñaari prince yi prince Rahman ak Rahim di ziare la ak soxna ummi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaanal yàlla di am mbégte lool ñu taxaw fii macha allah sunu kër sëriñ suñu kër wasila macha allah waa nag dañoo dañoo demoon marché nag ndugg nag ndugg ceebu yàpp macha allah ndugg maa ngi nii macha allah ñaari saaku soble moom lañ jënd oignon euh, kaani salade ak euh, laaj carotte baa ngi nii. macha allah ndugg bu sew bi daal yëpp a ngi nii daal waaw waaw ñaari saako vermicelle moom la ñuy def reer ndugg ma ngi dee daal defal nañ ba mu baax daal lépp sunu sunu sang bi rek di ñaanal soxna Mariama Kamara euh, yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu gunge ñu ba ci kanam kanam lépp moom la macha allah amuñu fayam ndax moom moo ñu indi sunu sang bi nga xamante ne mooy sunu yaakaar tey yaakaar ëllëg. alaaj mu Moule Sow di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te fekk ay sëti sëtaatam wallaahi de Moule Moule yaa ngi toog macha allah ma Marème fay Sall ñoo àndoon dem marché waaw laaree na ngi soxna yëpp ngi nii daal toog macha allah di ko defar daal ba mu baax daal macha allah seenaa ngoog seena mu ngi noonu waaw. <laughs> nag baa ngi ci biti raye guñ ko waaw ginaar yaa ngi nii macha allah defaru daal ba mu baax ndax sunu sanga bi lu baax la xam moo tax it de te dañoo dañoo dañoo sagal dañoo sagal ñun mule mulay bu waxee rek dañuy jiital ñun mule mulay ñooy def lépp kon amuñu fayam yàlla mi am fayam yàlla nañu ko yàlla fayal ñu yàgg fi lool te ñu yàgg koo liggéeyal ay baay faal lañ dañ koy liggéeyal ba kër ba ñuy sàngoo suuf ak yaay faal lañ wallaahi de ba kër ba ñuy sàngoo suuf duñ ci taay yi duñ ci kii nday jaxatee nga nele macha allah mule mule yëpp. kon nag di ñaan yàlla rek ñu dugg ci bisimilah eggale gi alhamdulilah rabi alamin de euh, euh, wallaahi a nda ba jox Marème fay Sall la macha bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu santee yàlla ak yonent bi ñu ngi sant suñu sëriñ alaaj Ceerno Mulay Saw borom kun fa yakun borom baatu baatin bi borom bëtu allahu muhammad bi borom faajuru naajuru ajuma bentene bintiyaani koni jaamaani koni damanka moo ñëwoo woon tey nag ci teeru ajo ajaratu Mariama Kamara bi macha allah ñu ci am mbégte di ci sawar macha allah mu yónni woon ñu dem marché nag ñu demoon dugg ji macha allah comme ni ko madame Babou waxee rek ñu dugg ba mu baax defar ba mu baax macha allah di ko ñaanal yàlla rek ajam bi yàlla na nangu lépp lu mu lu mu ci ñaan rek yàlla na ko yàlla nangu ci barki Seydina Mohamed suñu sang bu tedd bi nag ñu ngi koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér lépp moom la Seydi Sow yàlla na ko yàlla may gudd fan bu ànd ak wér heure bi déwén macha allah ñu teeru ko moom tamit mu jógee Màkka macha allah. ñu nag moom incha allah ba arjana incha allah di ko ñaanal rek gudd fan bu ànd ak weer mu toog ba prince di ko yóbbu màkka incha allah yal na yàlla barkeel yàlla sàmm yàlla aar ñu bàyyi ñoom moom nag ba arjana incha allah. ñu ngi nuyoo di ziare waa Daroulaye yëpp jël suñu nuyoo teg ko suñu loxo xalif général allah Thierno Moule Sow yal na fi yàgg te wér. allah Thierno Moule Sow yal na fi yàgg te wér allah Thierno Moule Sow yal na fi yàgg te wér di sant di gërëm suñu yaay di ko ñaan yal na kaala gi ràppate mu ràppal ko ci barke suñu sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu yaa la ren ak njaboot gi yëpp di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér ñu màgg ba sut seeni waajur fan eh, ay maqaama ñuy sant rek yàlla di ñaan di nuyu jëw jëwrin yi ak daarulaay yëpp ñuy sant yàlla bu wér ba ñu ñëwee tey jii ci bésu Adja Mariama Kamara mi ñi sargal tey macha allah macha allah sëriñ bi ñëwoon rek nag ne day sargal yaayam. bëgg yaayam lool macha allah bëgg yaayam lool ay laaj Thierno Moule Sow yal nañ ko yàlla fayal lépp a ngi ne gaañ aja Marème Babou ar ma Babou madame Babou moo demoon marché ak Marème Faye Sall macha allah ñu dugg ndugg mu rafet mi macha allah ñu fas yéene togg jàppale leen si waañ bi. nag baa ngi fële rayaguñ ko ganaar yaa ngi ni lépp a ngi ne gaañ yal na yàlla fayal ñu Thierno Moule Sow yal na yàlla fayal ñu Alaaji Thierno Moule Sow yal na yàlla fayal ñu ko. ci barke suñu sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam barke alquran karim macha allah macha allah.